wolof pël séeréer joola ak yeneen yi ni mel doon ay làkk yi nga xam ne ni bés bu ne sénégalais yu bare dañ koy làkk waaye taarixu réew mi tax ba français moom mooy suñu langue officielle te ci làkk googee moom la ñuy jaar ngir jàngal ndaw ñi moo ne bu ñuy dugaloon suñuy làkk ci lekkool yi dana doon lu am solo ci gëstu yi nga xam ne def nañ ko gis nañ ni tàmbali jàng ak làkk bi nga xam ne moom nga nàmp doon na lu am solo lool ndax dina tax doo am benn jafe-jafe ci beneen làkk boo xam ne dafa jóge bitim réew. ngir loolu mën a antu faaw d'abord ñu mën a dindi jafe-jafe ya nga xam ne ni moom moo am ci jàngale yi la làkk. c'est l'outillage des langues. jot na ñu gën a sàmm suñu làkk yi bokk na ci utal leen ay dictionnaire ak yeneen i lexique yoo xam ne dinañu mën a yaatal vocabulaire bi loolu dina tax ñi nga xam ne ñooy jàng man di def ay communication ci fànn yu bëri. de la communication. décalage bi nga xam ne ni moom la conclusion wu chercheurs yi di am ak mesure ya nga xam ne ni moom la nguur gi di jël moo tax ba dugal yi la làkk ci biir lekkool yi di yéex. yàgg nañu wax ci làkk yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi waaye ba léegi jëlaguñu benn ndogal bu jëm ci loolu. ñi nga xam ne seen xam-xam daf see màcc def nañu liggéey bi ba noppi bu fekkoon ne ñooñu dañ leen di jox nopp kon yaakaar naa ni mbir mu soxla làkk yi nekk ci biir réew mi réglé nañ ko bu yàgg. ci Sénégal làkkum français bi yàgg doon ay jafe-jafe ci ay ndongo yu bëre ndax juumte goo ci mën a def mën naa tax ba ñu xeeb la wala ñu lay xoolee beneen bët loolu di firndeel solo su dugal suñuy làkk ci njàngum xale yi